waaw ah, loolu dañ si sant yàlla dañ si sant yàlla di gërëm le président Macky Sall konte kóolute bu mu am ba euh, jox ko ne ne Fatoumata Tall peut-être lenn loo xam ni dinañ ko am si géejuwaay soxla woon nañ ko géejuwaay yàgg na te lii mësu ko am kon su fekkee peut-être li am nañ ko géejuwaay rek yalla responsable yu nekk fii géejuwaay di si cité kenn ko xamni taxawone na Guédiawaye muy le maire Aliou Sall nee nek na responsable des femmes au niveau département Guédiawaye mais amna taxway bo xamni xam taxaw muy si jigéen ñi muy si jeune yi muy si mak ñi muy si ndaw ñi muy si ñëpp taxawona na responsable fi au niveau Guédiawaye moo tax récompense bi bettuñu si moom bettuñu si mom xamone nañu li dina ko am ndaxte liggéey na te am na fenn foo xam ne teg na fa tànkam boolewu ko dara ki wax maanaam yow soo nekk ak moom di ànd ak moom sax dalay yar si jikkoom dalay yar si jikkoom boolewut ak dara ki wax kon responsable mel noonu suñ ko amee fii géejuwaay maanaam sens la. waaw attente bu nuy xaar fii defe naa ni méttiwul. mettiwul mettiwul metti na peut-être nen ne xale la te ànd na ak jeunesse bi ànd na ak jeunesse bi ànd na ak mag ñi ànd na ak xale yi te def naa ne mag su bëggee avancé si àdduna dina ànd ak mag dina ànd ak xale dina ànd ak jigéen te yàlla boole na ko si jëmukaay yooyu yëpp mu ngi ànd ak mag ñi mu ngi ànd ak xale yi am na conseil fii te am na fenn woo xam ne teg na ko tànkam fii géej gi way léegi waxatuñu Guédiawaye mais au niveau national la ñuy wax yàlla na ne yan bi oyof si kawam te am nañu yaakaar ni yan bi dina oyof si kawam. lu ma koy dénk daal mooy fépp fu mu tegoon tànkam ba yàlla may ko lii mu am bum ko teggi na na redoubler effort xam ni léegi Sénégal lañ ko dénk si jeunesse bi yëpp lépp loo xam ni mën na ko si jeunesse bi ne lañ jàppale. te am nañ si yaakaar bu baax képp koo xam ni manaam amul woon yenn ndomba tànk yi mu muy jàppale jeunesse bi chaque fois su ma nee mu jàppale jeunesse bi di jàppale jigéen ñi di jàppale ndaw ñi di jàppale mag ñi kon peut-être am na lu ba yan bi du xaw a métti yan bu oyof lay doon si moom incha te fekk na muy def ci gone yi di def ci mag ñi di def ci góor ñi di def ci jigéen ñi te yaayam ji yàqu ci dara ci yoonu njub rek la nekk pal gi nag dañ ciy sant yàlla. di ko ñaanal yal na ci yàlla tofal wér mu sedd guy ni galas ci moom yàlla may ko ci yeneen di ndam ak yeneen di ndam ak yeneen di ndam yàqul dara yàqulul Macky Sall dara yàqulul àllin Sall dara ci yoon rek la ko teg mi ngi ci yoon wàccul benn yoon ñu ci sant yàlla bu baax di ko ci sant kër gi dëkkaale rek moo moo ñu fi boole waaye am naa fi cër cër bu baax laa fi am cër bu rëy laa am ci kër ma nekk ak yaayam li ma mag a yaayam sax bariwul ndax feebar. feebar rek macha allah parce que nag euh, madame la ministre nga ne Fatoumata Tall dafa yàgg investir si ndaw ñi. ndax macha allah gis nga dañ koy tuddee ay finance chaque année muy jël alalam di ci def di jënd ay maillot di jàppale jeunesse su Géejawaay macha allah euh, arbre de Noël bi passé rek muy mois de décembre plus de cent xale ëpp na ko sax jox na leen ay cadeau macha allah géejawaay yëpp kontaan ci moom kon nag bàyyiwul xale yi bàyyiwul mag ñi bàyyiwul ndaw ñi kon yaakaar naa ne su ko président Macky Sall tey bu jëlee ministre de la jeunesse jox ko madame Néné Fatoumata Tall juumut ndax nag duma ni jeunesse bi rek la amal njëriñ mais femme yi tey macha allah moo nekk présidente des femmes ko départemental de géejawaay xëq ak ñëpp jàmm nag di liggéey liggéey bu rafet di ànd ak jeunesse su géejawaay ànd ak ndaw ñi ànd ak jigéen ñi troisième âge tamit gërëm nañ ko sant nañ ko parce que taxawaayam moo rafet macha allah kon am nañu kontaante bu rëy tey ak mbégte soo excellence le président Macky Sall moom tamit ñu ngi koy jaajëfal di kontaan ci moom ndax yaakaar naa ni su jëlee ma madame Néné Fatoumata Tall def ko ministre de la jeunesse géejawaay yépp la ko defal faamu géejawaay yépp la ko defal jeunesse su géejawaay yépp tamit la ko defal waaye nag mënuñoo tudd Néné Fatoumata Tall macha allah te tudd ñu monsieur le maire Aliou Sall ndax tamit seen nekkin ci géejawaay rafet na booloo nañ te xam nañ ni booloo mooy doole ndax su ñu ñëwoon mel neneen rek géejawaay day mel neneen waaye mention spéciale département wu géejawaay ci benno bi ak yaatal bi ak bëgg son excellence le président Macky Sall ñu ñaan nag ah ministère bi nga xam ne dénk nañ ko muy ndaw ñi di jeunesse bi te jeunesse bi ñooy espoiru ëllëg ñooy yaakaaru ëllëg yal na yàlla sunu borom defal ko mu doon loo xamante ni yan bi day oyof lool te bépp ministre de la jeunesse bu fi mis a jaar rek résultat boo munti am rek ñi ngi ñaanal Néné Fatoumata Tall mbay madame le ministre yàlla na am résultat yu gën a ëpp yooyu ndax am nañ ci moom yaakaar parce que jëf dafa nekk jikkoom avant lii di xew kon macha allah président juumul incha allah yàlla baax na ñu ngi koy ñaanal di ñaanal famim di ko ñaanal yaayam di ñaanal staff bi muy àndal ndax nag macha allah bi rafet na te dara ñaawul te lu mat fukki at ñu ngi ànd macha allah mu téye ñu te tam politique dafa metti nee Fatmata laf lañ koy ñaanal fan ak mucc ak yal na ko taxaw si barke Seydina ñëw ak ku baax la ñooy na bu nekk mooy suñu sëriñ nee taal ñëw jàppale ñëpp troisième âge ne dañ koy sant di ko gërëm rek koor ñëpp lay jox lu nekk lay troisième âge fu mu dafa lu ko mosquée euh, exemple moo ko Alioune Sall chaque fois ñooy ànd ñëw suñu jàkk ba benn bés ñëw ñu jindi cinq millions comme suñu jàkk de sewoon na tuuti ñu jindi cinq millions jox ko tokk ci loxoom mu jël cinq millions yi jox ko suñu imam ba ñuy ba ci mbaaxu suñu borom ñu ngi defaraat jàkk bu baax a baax macha allah yal ko yàlla dolli jàmm suñu doom ji yal ko yàlla jàppale yàlla mooy fal suñu borom mooy fal waaye ku mu falit moo lay jàppal yal ko yàlla jàppale yal na ko yàlla jàppale yàlla ko yàlla jàppale yaay ni ma ko saas ak mbaaxam ak yaayam tamit ku baax la papaam ku baax la vraiment yàlla na suñu borom taxawu taxawu ko bu mu yan biñ ko yan euh, te bañ a diis na bi mu sa maa ngi koy maa sant leen kër koy ñaanal yàlla euh, yàlla na dimbali ko ba yàlla bu ko euh, yàlla ko yàlla fal cat yàlla na ko yàlla fal cat yàlla ko yàlla fal cat lu am solo la waaw parce que nit ki yàlla rek xam waaw yàlla na ko ci làmmiñ musal lu nekk yàlla dimbali ko ba mu jàpp ministère bi bu baax a baax a baax a baax nit la koo xam ne ki la d'abord xale yi xale yi amul lu mu leen duñ defal cité bi xale yëpp lay defal ku mu gis defal loolu ñëpp xamoon nañu lii dina ko am ci ci mbaaxu yàlla yàlla def na ko yàlla na yàlla dooli jàmm yàlla jàppale. yàlla ministre Néné lañ ciy am mbégte am ci fierté surtout di wax lii du chance mérite la les femmes du département de Guédiawaye ont été honorées par son excellence lu ñu xaaroon la nag ndax Guédiawaye nag dafa liggéey dafa jot nag ñu jox ñu li ñu moom. Néné c'est une lionne c'est une battante dëgg rek moo neex yàlla c'est une euh, euh, fondatrice élément fondatrice du parti di wax encore une fois fierté la ñu am. ñun jigéenu Géejawaay ndax nag sunu coordonnatrice départementale daf ko liggéey membre fondatrice la ci parti bi c'est une battante jàppale jigéen ñi sonn ci jigéen ñi kon nag dañ naan président Macky Sall dafa honorer les femmes du département de Guédiawaye ñuy ñaan nag ndam li ah yan gi yàlla na oyof toll ni mbaxane ci bopp président mission bii mu ko assigné incha allah rabbi ñun jigéenu géejawaay dinañ ko ànd ak moom mais surtout la jeunesse

jeunesse bi incha allah rabbi président Macky Sall dafa compter ci ñoom dañ fi liggéey nag ni ma ko waxee suñu des gannaaw Néné taal ku ko xam xam ne moog jeunes yi démb la woon tey soog a ñëw li ma waxoon sànq rek du chance mérite la c'est le département ki est honoré ce sont les femmes qui est honoré mais surtout la jeunesse du département de Guédiawaye. xanaa di ko ñaaxaat mu gën a taxaw rek gën a jàppale jeunesse bi gën a ànd ak liggéey euh, jeunesse bi liggéey ba nga xam ne son excellence la ma ko waxee woon rek mission bii mu ko assigné du ci am benn euh, rëccuteef. en tant que femme Guédiawaye encore une fois man maay coordonnatrice commune Ndiarème laay également vice-présidente du département di wax ñun ñëpp pare nañ jàppale euh, nee ne madame la ministre ba mission bi incha allah mu réussir ko avec brio di dellu di wax rek remerciement pour son excellence vraiment sagal na géejawaay siggil na géejawaay géejawaay nag li ma ko waxee woon rek da koo mérité da koo liggéey ànd ak sunu maire Aliou Sall nga xam ne macha allah macha allah il a été sur les fronts ñu ànd ceeg moom ànd ceeg sunu ministre bi di wax nag incha allah euh, mën nañu dalal xel yi te xam ne rek incha allah ndam rek lañ ciy am bu neexee yàlla tiituñu benn ñoon tàggaluñu benn yoon yëg bi ñu ci am dañuy sant yàlla rek di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xam ne lii du sens mérite la nag lu mu liggéeyoon la ci département bi daf ko liggéey loo liggey rek mom ngay agné wala nga reere ko mom cër bobu nak lañu président délo ci département Guédiawaye mhm. nen ne de xana rek diko doli wayé nak liñ koy dénk fekk na mu nekkoon ci ndax nak liggey rek la xam so fekk liñ naan góor day sol day takku tubéy jigen takku tubéy da ko see fekkoon foo fekk mi ci département bi ak furul département bi fep pour liguel président Macky Sall nak ndax nak dafa bok ci fondateur yi euh, APR kon nak bon nenne bon lu mu meuna def rek dañ koy dolli di ñaax rek ne ko gënal a góorgóorlu rek waye fekkon nak contane rek lañ ci am te yag ko ko yéene nak ndax si ni muy doxaleeg euh, jigéenu départemental way na yakarna euh man dam bala ma wax nenne dar damay félicité jigenu département bi ba pare ndax jigenu département bi wax deug yalla bay sen war si tey li tax président gis ko ba nommé ko ñoom bay nañ seen waar ma leen di félicité bu baax waa muy euh, Dame de Guédiawaye yëpp yëpp yëpp yëpp maa ngi leen di félicité di félicité monsieur le maire Aliou Sall di ko ñaanal yàlla yàlla na yéen bi oyof nee na nag lii du sens mérite la ndax wax dëgg yàlla lu mu liggéey la si département bi ndax ba muy jàppale président Macky Sall 2008 la woon boobu étudiant la woon waaye da ko daan jëlal mu jóg reyante pour président Macky Sall falu mu fal ko nag 2012 def si lu doy waar loo xam ne loo xam ne nit ñëpp lañ si teg seen bët tey ji 2019 ñëw mu takkaat sërëm tak mel ni moom gisul woon dara lu dul gañe kon tey ji bu président Macky Sall jógee tey jox ko ndomba tànk bi muy ministère euh, de la jeunesse ñun daam yëpp dañ siy kontaan ñun femme yëpp dañ siy kontaan na ñëpp a ko yéene ndax nen ne tamit yemul fii rek même pikin sax boo demee dañ naan la nen foo dem si Dakar dañ naan la nen ne yaakaar naa ñi woote ñëpp ak ñi ñëw si kër gi ñëpp yaakaar naa du waa géejawaay rek lay jàppale ah ñu koy ñaanal yàlla nag yéen bi yàlla na oyof yàlla na oyof li tax président gis ko nag ba am si moom yaakaar jox ko lii te jigéen mosu ko jiite mu jox ko ko dafa am yaakaar si moom tamit muy xaritu jigéen ñëpp may nuyu nag cinq femmes yëpp ñi fi nekk ndax tey ji cinq femmes yi dafa am loo xam dañ ko joué si Néné Tall waaw te ñu nekk ay yaayam kenn ki muy wàq naa nimzaat ñoom ñi ngi nii toog muy ma te Guissé ne xam naa mi ngi si yoon bi ndey Fary Diop moo nekk fii golf nekk responsable femme Néné Tall euh, madame Thiam njaareem li maamu laay ki ne Fall Gounass kon ay responsable rek ñoo toog fii waaw maa ngi gërëm ñëpp nag di di jël nuyoo bi yëpp nag di ko teg si ajaratu Néné Tall suñu responsable de femme suñu ministre suñu xarit di wax ni yàlla na yan bu oyof di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal way juróom jàmm wasalaam ngeen baal ma àq merci